mon impression par rapport à cette journée d'aujourd'hui, c'est une impression de satisfaction. Parce que, comme nous le rappelions très souvent, parce que nous sommes arrivés à un moment où tous les secteurs d'activité doivent s'organiser, se formaliser. Et donc, voir une telle initiative se dérouler ici ne peut que susciter notre satisfaction. Cela est encore d'autant plus important que la situation actuelle l'a prouvé avec euh, cette situation de pandémie qui a fait que l'État a voulu quand même faire un geste à l'endroit du secteur culturel. Cela a montré la pertinence et la nécessité qu'il y avait pour les acteurs culturels de se formaliser, de pouvoir s'identifier d'abord au niveau de leurs sociation et ensuite de s'identifier auprès de la SODAV. Ceci faciliterait toute forme d'aide qui devrait leur être consentie dans le futur. Donc, sous ce rapport, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction et en tout cas exprimer euh, mes vifs encouragements aux initiateurs euh, de ce projet, notamment M. Makumba et Madame Bass, Allo Bass, qui sont ici à mes côtés. li fi am dama koy rafetlu tey parce que lu koy firndeel mooy dañoo toll ci jamono ju nga xam ne ne lépp lu waay di yëngu dañoo war a jéem a dajaloo booloo ba mun a organiser seen bopp ba nga xam lépp leen di waay di mun a dimbalee ëllëg day yomb pour ñoom loolu am na solo suñu xoolee ndimbal gi état di def pour le secteur culturel et artistique gis nañ ne ne ña ci wu amoon na solo lool ci ñoom formalisé wu d' abord ci seen i biir association ba pare formalisé wu aussi ci wetu SODAV bu nga xam mooy société de gestion collective bi parce que diggante SODAV ak association bi mottali wante la jàppale wante la ci liggéey bi donc ci suñ ko xoolee ci angle boobu noonu man damay mun a wane sama mbégte ak sama contentement ci lii ci am ba pare di gën a encouragé ñii nga xam ñoom ñoo sumb affaire boobu noonu Euh, madame Alobas mi ngi sama wet monsieur Makumba mi ngi nii ak seen i ñooñ ñu ñu àndal donc vraiment daal ma leen di encourager ci initiative bi wan leen ne fii la te nañu gën a xóotal liggéey bi gën a préciser affaire te gën ko yaatal ba jàppale ñeneen ñu nga xam ne ne euh, formaliser guñ ñu mun a jege ci ñoom ñu won leen yoon bi gindi leen ñëw jege soda soda aussi jàppale leen ci liggéey identification boobu ak inscription boobu noonu ñuy def. maa ngi jaajëfal ñëpp ñi ma àndaloon ci liggéey bi tey boo leen gisee ñëw fii ci palais des arts ñun musiciens Thiessois dañ toog benn moment gisatuñ suñu bopp ci lenn ñu tasaaroo mbooloo amatul moo waral ma initier def benn association les musiciens de la région de Thiès pour ñu mën booloo nekk benn te wax dëgg yàlla loolu mooy suñu njariñ ndaxte tey bu fekkee da ngay liggéey te xamoo fi ngay teg sa tànk yaakaar naa ci difficulté ngay nekk et je pense que tey mi ngi fi mu nekk suñu banque ndax yaakaar naa ku yor say milliards wala nga yor loo mënti yor ci alal kon ñun waa SODAV ñun ñooy suñu wéeruwaay ñoom ñooñu mën a jàppale ci li ñuy def et puis di am mbégte ci seen présence tey ndax wax dëgg yàlla Bathily euh, mi ngi def effort bu nekk ak équipe am pour mën a couvrir musiciens yi kon donc ak képp kuy nekk ci biir SODAV rek ñoom ñu koy ñu ngi liggéey liggéey bu am solo kon leen di ñaanal bu baax li ñuy liggéey suñu borom euh, jàppale leen ci di remercier ñi nga xamante ne nag ñoom laa nekkaloon ci comité de pilotage muy Alobas Zal Mbacke ak Omar liggéey liggéey bu am solo wax dëgg yàlla li bu demee ba remercier ñëpp association bi li ko tax a jug nag mooy mooy li ma wax sànq rek ñu jéem a identifier musiciens yi nekk ci région bi yëpp bi njëkk ñu yóbbu leen SODAV ñu inscrire pour ñu xam ne kat ñoom ils sont légal benn bi ci des nag mooy wax dëgg yàlla bëgg nañ tamit suñuy droit ak suñuy àq ak suñuy yelleef ñu ñu koy jox mais yaakaar naa comme dama koy waxee woon sànq rek bu fekkee yow xamoo sa bopp njëkk ndax je pense que bépp Sénégal dafa war a am bu ci tolloo te yaakaar naa moo tax ñu ràññee dëkk ba bokk ñun nag moom ñoom ñoo ñu war a dimbali ñun ñëpp ñu am fa carte su ko defee ñu xam ne ñu ay artistes lañu mais projet yi ñu war def dafa bari ci biir y a tellement de projet yu ñu war def ci biir association bi te loolu incha allah rek bu ñu ci yeggee rek ñëpp dañ ci jot bon projet bi njëkk mooy ñu reconnaître ñu benn bi ci des mooy aussi euh, ñu ñu def formation boo xam te ne je pense que nit booy liggéey te defoo formation ci difficulté ngay nekk ñu former ñu lu mel ne ñu am ay institut lu mel ne ñu am site internet boo xam te ne day nekk site des musiciens de la région de Thiès suñu base de ñu ko fay am kuñ soxla di fa jaar di ñu mën a di ñu mën a di a contacter ba pare lépp loo xam ne day am ci àdduna bi ñu ciy bokk defe naa daal loolu mooy projet yu njëkk ba pare di am suñu biir am ay compte bancaire ci ci fépp daal pour muy see mën a jariñ ci seen liggéey. man la Macoumba Diaw nekk artiste batteur dëkk fii ci Thiès. yow yaa initié tamit waaw man maa ko initié mais wax dëgg yàlla wéetu ma ci ndax ku ma woo nga nee ma acca maa ngi ci biir je pense que membres yi nekk ci biir euh, panel bi mën nañu deux cent cinquante ñoom ñëpp woo naa leen benn par benn te ku ma ci woo da ma jëlal trente minutes pour ma expliquer li ñu bëgg def te yaakaar naa ñoom ñëpp ils ont compris parce que dañu toll ci benn moment boo xam te ne suñu parents yi nekkoon ci àdduna bu ñu leen yeewaatoon ne leen nit ñaa ngi gisee nit ñaa ngi waxtaan te gise wuñu duñ ko gëm kon ñu ngi jaajëfal WhatsApp ndax moom moo a lii lépp. boo association bi euh, c'est la région de Thiès fépp fu nekk ci biir région de Thiès yaa ngi ci biir panel bi. te incha allah rabi dañ ko gën yaatal ba bépp région ak diaspora bi ba bépp région fu waay nekk dañ fa am représentant pour mu ñuy liggéeyal foofu bàyyiwuñu lenn ñun suñu problème rek mooy ñu booloo nekk benn ñu xam suñuy droit ba pare waa SODAV ñi nga xam ne ñu boot ñoom it ñuy jàppale ci li ñuy def ba ñu mën cee gis suñu bopp man maa ngi tudd Alobas bon maa ngi dëkk Thiès nekk fii ci région Thiès bon suñu rencontre bi tey mooy mm, dañoo am benn association ñu ko tuddee tuddee AMS AMT donc euh, Makumba mooy initiateur bi donc rencontré nañu plusieurs artistes yoo xam ne xamuñu woon sax ne bi am na Thiès nombre d'artistes yi fi nekk yi nga xam ne inscrire wuñu sax am na fi donc ci biir kii bi association bi tax nañu xam te aussi damay remercier directeur AM AM ak SODAV donc monsieur Bathily moom dafa déplacé mooy ci taxaw nii dafa déplacé wu uniquement pour ñun te loolu c'est un donc euh, mu xamal ñu li ci biir tamit xamal ñu ñu ne xamal nañ ko ne ñu ci inscrire bëri na te xamuñu ko woon xamuñu woon activité SODAV parce que ñu bëri say seet genn ak yëpp jànguñu donc loolu dañ ko ciy remercier te yee nañu ci aussi te nag dafa jël bàyyi yitteem yëpp ñëw pour ñun donc dañ ko ciy remercier association mi ngi ba diaspora bi parce que am na ñu nekk ci diaspora bi dañuy dañuy waxante par whatsapp gisanteeguñu mais dañuy waxante par whatsapp dem nañu ba familiariser wu ci biir mel ni comme si dañoo xamante tey ak te association bi moo ko waral donc ñu bëri tey par par exemple man ñu bëri tey tey laa leen ma sa gis par whatsapp rek ñuy waxtaan di di yeddante di yante donc di wax fan la ñu war a mën a jaar pour dem. bon artistes yi may jox yëpp mooy dans le monde entier képp kuy artiste thiessois na nga ñëw rejoindre suñu groupe bi. parce que vraiment groupe bi am na projet yoo xam ne pour ñëpp la parce que dañu bëgg artiste bu ne gis sa bopp. dañ bëgg ak structure bu nekk gis sa bopp donc loolu loolu am na plusieurs projets yoo xam ne ça va venir dans l'avenir l'initiative c'est que les les musiciens de Thiès se sont ils ne se sont pas vus dans dans dans l'art dans dans dans le métier de l'artiste quand parce qu'ils sont ils étaient dans l'oubli donc cette association a permis aux gens de connaître le droits on parle de ça dans dans le WhatsApp et puis nous a permis d'avoir une opportunité parce que vous avez vu, le directeur de la SORAF est là. Donc, plus de, plus, beaucoup de beaucoup d'artistes ne connaissaient même pas la SORAF et l'AMS. C'est à cause de ce WhatsApp qu'on connaît, à travers de ce WhatsApp qu'on connaît la SORAF donc, et, l'AMS. Je, je, remercie, le directeur de l'AMS qui est venu personnellement nous rencontrer. C'est un, un honneur pour nous. parce que vraiment, il pouvait envoyer des gens, donc déléguer des gens, mais il ne pas fait, il s'est pour venir nous rencontrer. Donc, euh, je le remercie beaucoup quand même. pour, pour, pour cette euh, association, c'est pour, pour, faire connaître au monde que Thiès, il a plusieurs, plusieurs artistes. Bon, même beaucoup dans dans la diaspora aussi, parce qu'on se connecte à chaque fois avec eux et ils habitent à Thiès. Donc euh, c'est une opportunité quand même de se connaître. Mhm. Aujourd'hui même, moi je ne connaissais même pas les gens qui sont dedans. Mhm. Donc c'est ce jour même qu'on se rencontre, on se parlait euh, dans le WhatsApp comme ça, sans se connaître. Donc, mais aujourd'hui, on a fait la présentation. Chacun connaît l'autre. mais envisagez-vous élargir cette, cette association Bien sûr, bien sûr. On l'envisage parce que, bon, nous, on travaille pour nous et notre pays. Donc, Thiès fait partie la du Sénégal. Voilà, c'est la région et le département, tout ça. Donc, on, on, avait même envisagé de dire au directeur de nous laisser une agence ici, une agence ici pour, pour que les gens s'inscrivent. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs et de batteurs qui ne, qui ne savaient même pas qu'est-ce que c'est SODAV l'AMS. E. Donc, c'est ça. Donc, c'est une opportunité pour nous quand Actuellement, on est en train de les coacher dans le WhatsApp. Si quelqu'un trouve un artiste qui ne savait pas le WhatsApp, on, le, fait savoir le WhatsApp. On, est en train de les. De les comment ouais. on a beaucoup de projets en, en